la la Euh, di santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax ci euh, xéewal gi nga xam ne moom la defal waa dëkk bi muy euh, teen bi nga xam ne liñ ci liñ ci jublu woon mooy lan mooy def benn teen boo xam ne su amee ndox rek incha allah ñu fi dëkk maanaam danañ denc coono uti ndox kon suñu yaay ji nga xamante ne moom moo leen may teen bi jàpp naa ne teggi na ab jafe-jafe bu mag a mag boo xam ne xëy na dëkk bi nekkoon na ci muy benn donatrice boo xam ne def na ay teen yu bëree bëri ren bi mën naa compter ci ñeenti teen yoo xam ne def na ko fi te it euh, boobu ba léegi bi mu fi def ay teen yi mos ñëw waaye yëg-yëgam mooy lan mooy na def loo xam ne dina dimbale waa dëkk bi. ki nga xam ne moo indi fii kéwal bi e di leen sant yéen ñi nga xam ne yàlla fa mu nekk moom kenn tànkam mosu fi taxaw. waaye yéen yi nga xam ne yéen a ngi koy jok jottali fii di ko taxaw di ko dog di ko toog ba yàlla indil na lii tey muy ndox bi de defi manqué woon lool nu tuumuranke woon ci ndox bi lool e yàlla def na leen ngeen am ci taxawaay di ko kii noo ngi delloo kii nga xam ne moo financé teen bi mu jaare ko ci yéen di ko ñaanal li mu mon yàlla na ko gën a mon de ki ko xamal ne léegi nun dey kontaan nañu funu fu julli ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla defal li gën ci moom liggéey nañ ko liggéey biñ ko war a liggéey kontaan nañ ngeen jottali nu nda soxna si ñu ngi koy ñaanal lii lu fi tumurank woon ñëpp ñu ngi koy ñaanal yal na ko gën a mon eh, dëkk bi amoon na tumurank ñaar am na tumurank ñaar ndox am na tumurank ñaar école arab te eh, bu fekkee lii ngeen jottali nu ko bu nu ko mënee dimbali waaye lépp baax na lii doon woykat bi wax bu fi yemoon sax mu neex waaye neex na. di gërëm soxna si ngeen di wax moo ñu may teen bi teen bi lu ñu soxla woon fi surtout jigéen sax surtu jigéen sax bu manqué ndox di ko ñaanal wér gu yaram ak gudd fan li mu bëgg moom moo ko xam ba mu jublu ci teen yi yàlla na ko ko yàlla defal. tey ba ñu waxee rob bi tey ba ñu waxee lii bi am na paan ma dama ne na yaqku ndax legi amna na kon kay dañ leen di wan ni rek contane nañ ñun macha allah ndox mi dafa wex tal rafet neex macha allah ni ndox di mer rek la mer wa ñu leen di soñaat batay ñun arab bo xamantene bo xamantene xalé ne mën nañ ci jang suñu xalé dañoo dañoo dañoo dañ leena seddu ñi keur Kër Njaay ñii Ngaraaf ñii am nañ fi ben dekk keur Njawar fii macha allah xale yaa ngi fay jàng alquran bu baax bu rafet macha allah bu ñuy tari sax da ngay contane wa wa euh, ce puits dénommé Aya fait partie des quatre puits que vous avez financés généreusement c'est un puits qui se trouve dans une euh, zone où la nappe elle est très profonde. C'est un puits qui atteint quasiment les 40 mètres. Nous sommes à, 38 mètres. Donc ce sont des puits difficiles à financer et difficiles à obtenir les populations de par elles-mêmes du fait du manque de moyens qui, qui existe ici. Donc euh, ils ont fait appel à nous, nous avons fait appel à vous, vous avez répondu et ce puits a pu avoir lieu. Un besoin que vous avez satisfait aujourd'hui pour lequel on prie Allah Azzawajal de vous récompenser et d'accepter un geste qui est hautement noble et dont nous espérons une suite, Inch'Allah, puisque des demandes comme ça, nous en avons euh, énormément. La demande, elle est là. Nous sommes en plein ramadan. Nous lançons également une opération force du partage avec des kits qui sont distribués aux populations qui sont vraiment très très nécessiteuses. Donc toute contribution à cela est au fait d'offrir euh, par exemple des, fauteuils roulants pour des handicapés. Tout ça représente des actions pour lesquelles une opportunité est offerte par euh, ou Action pour l'Espoir pour pouvoir collaborer et donner davantage à ces populations qui ont énormément de besoins.